طب استاذ مختار السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حاج بابكر دلونا نال النيو زياره جلجف استاذ يوبلو بس بي واو حاج بابكر يوبل بي لي دافاي bi ريك تي لي rek واخ نان دنت wax جور ولا دنت wala nga xamanteni bi nit ki dafay am lu muy yor rek denc ko te dootul xam fan la ko denc mu soxla ko nak diko wërte du xam fan la nek mu bëgg sunu borom dimbale ko gindi ko bala mu tege woon te xamul fan la ko teg yàlla dimbale ko ba mu gindeeku ca loola dafay jàng benn faatiha bu yegsee ba ci ihdina siraatal mustaqim mu taxaw daal di jàng yaa haadi yaa haadi tur yàlla bi ñuy wax haadi mu jàng ko fanweer yoon ak ñett su paree mu teg ci ñaan gi mu wax allahuma yaa jaami an naasi li yawmin laa rayba fiihi اجمع بيني وبين الضالة اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين الضالة su ko defee mu eggale fatiha bi julli ci yonent bi incha allah léegi yàlla indiqué ko la mu dencoon te xamatul fan la ko tege yàlla mën na ko gindi ba mu gis ko incha allah haj Babacar. jërëjëf oustaz Mor.